si beaucoup mbokk yi nga xamante ni yéen ñu déglu sur la télévision ñu leen di bëgg bu baax kenn ku nekk turam ak santam waxtu wi xam ngeen ne kuy addu moom rek la il se nomme tout simplement Dj Ama xale bu rakkaajo bi. tey jii ñu ngi seen émission wane sa talent ñu ngi fii diwaanu Sokone Sokone jingili aram bu kaax ñoo seet si ñi nga xamante ni suñu am bi jàmm la fii si diwaanu Sokone ànd ak ñi nga xamante ni ñoo nekkoon fans di jiwama yi ñu leen di bëggee bu baax di leen kontaanee tey li nga xamante ne ñuy suivre en direct de la télévision rawat mi nga xamante ni moo nekk internet yi jàpp leen ne lépp lu nga xamante ni xew na fii si diwaanu Sokone incha allah rabi dañ la ko woon en direct de la télévision mbokk yi li nga xamante ni moo virus rek dinañ di andi léegi léegi ambiance bi nga xamante ni moo am fii si diwaanu Sokone ku ñu dugg dem sama gars ñu dem ku ma tàcc ma tàcc ma tàcc ma tàcc loxo ay waay tàcc ma ay waay tàcc ma ay waay tàcc ma ay waay ku ah, tàcc dana ko jot a sa loxo ca kaw waay ana waa Sokone sa loxo ca kaw yéen waa Sokone sa loxo ca kaw ana waa Sokone sa loxo ca kaw ñu bëggee di ci Ama sa loxo ca kaw ñu bëggee di ci Ama sa loxo ca kaw ñu bëggee di ci Ama bañ waay waa gaañ gi ñu may bañ waay ku si tàccu ku si tàccu ku si tàccu ku si tàccu ku si tàccu mooy déggal dégg ah ah jën jën sa loxo yi ana sa loxo yi ana attention kon voilà merci beaucoup merci sama copain xam naa ne ñun ñoo bokk aar bi ñu ñëpp c'était juste ñu ubbi rek mais damay kontaan si yéen dañ ne culture dafa nekk li nga xamante ni mooy développé bu baax askan bi waaye tey dama am mbégte contentement tey di waxal li nga xamante ni moo firndeel sama digganteeg ñii. mu nekk waa gangi ku ñu mel ni moom ayu odet saax te tambaat gangi su ma limee damay juum dañ maa jàppale sookoon kon su ñaqee damay ñëw tàccu leen loxo yi bés bu nga xamante ni seen bés la sama diggante yéen mu mel ma bàyyi sama yitte tey ñëw fii Sokone noo gisee le programme boobu. waaw Ama ñun bu ñu déggee ne da ngay ñëw dañ see kontaan trop macha allah parce que wan nga ñu ne ñu nag yow démb la woon vraiment kontaan nañ trop ci rajo bi aussi. waaw sa sañ sa xeex nga ko sax li nga sañ yaa ko tey. bon damay jàng rek ma dem. sa sañ sa baax na. ma dem sa ngoon day jàng rek. eh lu ko moom sa eh. papi. papi. waaw moom nee na bopp yi moom moom li nga xamante ni moo nekk ab AM ñu daal di xool programme bi ak yooyu yëpp maa ngi toog ñu xool ñu xool jóge bi ni ñu toogee waaw soxna si nuyu naa la nuyu naa la. yaa ngi am jàmm bu baax. sant yàlla tey la télévision suñu TV tey ñëw ka ñëw fi maanaam du mu nekk Sokone sa si yéen si programme bi nag bu tey sa sa sa mbaa xew ko rek. nga seen si yaa ko tey. xool na fan si li mu sensé li mu sensé. kan moo la ñëwal kan moo la ñëwal. kan moo la ñëwal. kan moo la ñëwal.

kontaan nañ. Eh, mais li nga a nga def yaa ko tey li nga sañse li nga sañse. non non dama ko simple la xam tubaab yi tubaab. waaw ah, gis nañ la télévision suñu TV bu Kaaxaan ci am mbégte ak contentement di wër di xool ay jongoma yi problème mu jongoma ñu toogee ñu toogee ma xool kan la kan la ñan nga doon fii côté bi ñan la ñu ñan la ñu. boobu ma jëloon sama jongoma tey ñu ngi laa ñu ngi laa sama mbaa. fay naa la. nga tey. Thank you. rek ama noo gisee bés tey bii xanaa kontaan kese rek bi déplacé tey ñëw seet si fii si Sokone noo gisee loolu waaw xol bu sedd gu ne glace ah. ndax xam nañ ne yëg moom mënut a weesu lii ñoog woon démb ak barki démb te mën nga ñëwoon ginnaaw fàtte ñu waaye defoo ko waaw wane nga ne daal yaa ngi ñoo bokk mbuus daal ñoo a <laughs> a ko de ah, ah gis nga rek bu ko jàppale gaay rek waaw merci beaucoup waaw li 24 heures 72 <laughs> <laughs> merci beaucoup. macha allah macha allah. non daa am lu may bind nii. am lu ngay bind quoi. yëfu aw ngay def. waaw yëfu aw laay. aw pur aw pur et dur. pur pur et dur. noo gisee bis tey tey. waaw ça va kontaan rek kontaan rek. ndeysaan ñaan yàlla commencé ko si bisimilah rahmaani rahim. égalee uh-huh. ko ci alhamdulilah rabbil alamin. sama yéen ñi soo ko ñëpp dund tey ñu seen bis bi tey noo gisee loolu. waaw kontaan rek kontaan. gërëm leen ñoom ñëpp sant leen waaw waaw ñu ngi kontaan bu baax dinaañ yàlla ànd bi yàgg lool te barke. te boo gisee waa Suwon yëpp génn tey ñu yëg sa yaram tey. waaw ñun moom kontaan macha allah ñu wax sax kontaan nañ yow aussi gërëm lañ la bu baax ak kii nga àndal ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokkute bu bëree bëree bëree bëree. maa ngi fi. sa noir baax de. merci beaucoup. amu jigéen noir neex na musuka nga ñuul boo neex. waaw maa la loo gis wax loolu jamaa noir rek. jamaa noir tey ngeen koom. kontaan rek. sa waaw dafa fi célibataire rek. man. célibataire. waaw. sedd baa lay gaañ. mu gisoo loolu sax. baa lay gaañ. ok ñoo gisee bés tey bi tey. waaw kontaan rek ci bés bi. waaw ñu ngi ñaan yàlla yal na ànd bi yàgg rek. yéen tamit gërëm nañ leen sant nañ leen ci département bi. ñu ngi leen di ñaan bonne continuation. merci beaucoup. merci. merci merci. bés tey bi tey nga oole tey waaw soxna ñëpp gën tey. neex na neex na maa loo yëg loo yëg. sama xol moo sedd guy. dafa sedd bu na moom macha allah. ngay wax ñi nga xamante ñoo nekk sa am di jaamu tey ñu seetaan si télé bi tey. waaw man moom ñoom ñëpp samay ma def na comme sama seen rakk. wax dëgg ma lenn lu may wax moo sedd instant yi noonu bu baax ak télévision suñu TV daal di wéy tamit lépp loo xamante ni tey am am na fa tey programme tey fii si diwaanu Sokone jàpp nañu tey la télévision suñu TV bu Kaaxaan dañ leen ko jox en direct kon mbokk yi yéen a ko jéggandoo wax ñu daal di xool li nga sama cameraman maa ngi am jàmm. la ñëwal. man. ah. Modou sax ma naxul doomu tey lu waral tey sa teewaay fii. xanaa ñëw ci beer ba waaw dàq sa naq dëkkal sa waaw noo gisee tey programme bi nga xamante ni waa Sokone tey ñëw fi oote tey. programme bi na moom neex na macha tey loo yëg sa xol loo yëg loo rek. waaw man kenn kenn moomu ko. kenn moomu ah nee na xolam kenn moomu ko. merci. sama ko dara baax na. merci merci. sëñ bi yaa ko tey. ah dama ñëw. fekkul di sedd bi rek. waaw. Ah, neex na macha allah neex na torop. waaw. lu war a nga woon fii tey sax xëy la ñu wala da nga kaa digg ñëw. ah dama ñëw rek jàppale si samay mag parce que ñu nekk fii samay mag lañ rek. waaw. programme bi tey 24 heures baax na de. ah dégg nga yaa ngi tey. gis nga tey nga gisee mu si tey bii. ñëw seetaan si la rek. dama si kontaan. ngay sama mag ju baax. loolu moo tax ma ñëw fi di la seetaan. waaw. loolu wax tey ñu ngi seen antenne de la télévision. ah kontaan si rek. dañuy kontaan kon ñun daal kontaan lañ doon. ak loxo loxo ndeysaan. sa kol baax na de yow. <laughs> ah bàyyi tooñ. bu leer baax na. ah bàyyi tooñ ama ama bàyyi tooñ. li nga sëñ yaa ko tey. yow lay jàppale. xol bi ku ko moom. ama ama. ah nee na xol bi maa ko moom gisee bu si tey bi tey. ah neex rek. neex. waaw neex. dégg rek. neex. waaw neex. aja neex. neex mu xees mbaa mu ñu tax man xees sama gënal waay. lu gisee bu si tey bi tey. kontaan rek. kontaan rek. mais mhm. noo ñàngal yow. non ñàngaluma. maa ngi laa fase. déedéet. fasuñu la. déedéet xol bi kan moo ko moom. ah. amul borom. amul borom. déedéet. ay ah noo gisee bés tey bi tey. tey kontaan nañ trop ci bés bi. parce que suñu koñ moo organisé suñuy mag suñuy tante ñëpp dañoo kontaan bu baax a baax. ci bés bi. acca waaw nee na xool ne tey bu ñu gisee mbooloo mi tey ñëw teew fii ci diwaanu Sokone tey loo yëg sa xol tey. non tey moom parce que. fierté la si ñun parce que woote ñu wuyu si dafa neex trop te suñu koñ woote na ñëpp ñëw sérieusement kontaan nañ trop. aca bëgg bu baax baax a baax si maam jàmm. waaw sant yàlla. xale bi li nga yaa ko tey yow. ah def nii rek sa kàb bu baaxee nii. waaw. man xam li ma gën a jigéen. mu ñuul te ñuuloo ma si daaxal te yaa ngi ñuul kooku macha allah. ah ni nga mel. bàyyi ma gën koo defar. noo gisee bés tey bi tey. kontaan rek parce que sama booy ñooy fii ci normal. ma gisee digg sànq nga dugg si kër bi def li ñëpp di wax li nga def yaa ko tey wala yaa ko jàng wala yaa ko wala da nga kaa aspiré comme si. non judduwaale la. da nga kaa judduwaale. waaw. doo ko faale maa wa mooy sa baay. ah. ah doo ko faale maa wa mooy sa baay. waaw. oui 100 pour 100 tous les jours. dafa faral maa wajor Kumba Samba yaa jëloon doog a xanaa xam nga. tiit naa. loo gisee bés mu nga xamante ni tey moo nekk bés ñoom waa Gangi ñoom ay bébé Odette Sarr waa suma yëpp génn tey sa xol loo ko yëgee. dama kontaan trop ba ma yëgsee fii ba gis gaay ak nu ñuy doxalee dama kontaan sama yaram dafa daw ak gaay ñuy féetee ba yaa koy féetee aussi. waaw sa kàddu ko ma tuddee. Euh, tuddee naa leen ko. man mii waaw. ma ñëwee ba tey yow kese yaa ma ko wax. merci beaucoup. programme bu nga xamante ni moo nekk programme Sokone waa gang yi tey fii si diwaanu Sokone euh, nga xamante ni ñoo nekk nga xamante ni ni moo nekk ay marraines fii tey si Kër Galaye Maison yow ma gis la tey nga ñëw ni moo nekk diwaanu Sokone sa seen chef baax na d'abord avant tout salaamaaleykum. Hmm? salaamaaleykum. maaleykum salaam. na nga dem. maa ngi fi maa ngi sant yàlla. mais li nga sensé yaa ko tey. ah damay tëyam rek. yow li nga rose yaa ne damay jéem rek. damay jéem rek. ah nga mën a ñëwal. Zakria. ah a ndax est-ce que xam nga naxul la. naxuma kay xam naa ko kay. xam nga naxul la biir. waaw li waral sa bi. li waral tey sa teewaay fii ci bés bi. ah li waral sama teewaay mooy Adja Mati fonk nañu faale nañu. te xam na nit. moo waral tey ma def dérangement bi ma ñëw fekkale ko ci bés bi. bu nga ñëwee ngeen bokk ci délégation marraine bi tey nga ñëw gis mbooloo mi tey nu mu takkoo fii ci diwaanu Sokone lan nga yëg. Hmm? bu gisee tey li nga xamante ni moo nekk mbooloo mi tey fii nga bokk si délégation mardi bi tey nga ñëw fi tey lan nga yëg sa xol lan nga yëg sa xol loo yëg. non kontaan naa trop sax kontaan naa trop may sant bu baax. ak ñun ngay béggee ñun ngay béggee yow. may sant ñëpp di gërëm ñëpp surtout rawatina ñu def programme bi tey am nañ aayo si nit te am nañ respect si nit tamit xooluñ ne mat nañ la xooluñ ne ñàkk nañ laa mat looloo tax mat. am kontaante tey bu baax kontaan naa trop sax. te kon nag wax. ak rasulullah yaa merci. sa jongoma Sénégal a koy wax. Hmm, merci beaucoup. est-ce que nangu na da ngaa jongoma. waaw nangu na kay. sa crevage baax na. merci. kan moom. Aliou Sarr. kan raay. Aliou Sarr. ah bon. waaw sa loxo kan lay raay. man Aliou Sarr. ay waay Samba. yéen ko dégg ndox nee na ma Aliou mooy raay loxoom ak crevage am lépp. waa tey ñu gis tay nga ñëw si bés bu màgg bi tey mu nekk nga xamante ni mooy nekk tànn beex bu gangi ñoom Odette Sarr ay ay bébé ak Tata Mbaat ñëpp nga xamante ni ñëwoon bés bii tey bu nga ñëwee tey si bés bi tey lan nga yëg sa xol. sama chéri la ñoom ñëpp. waa. <laughs> da ngaa no da ngaa nobaate de. xamoo ci dara sax. tax nga jongo ma. <laughs> Aliou moo tax ma jongo ma. Aliou moo tax nga jongo ma. waaw. tey lan nga yëg sa xol tey lan nga yëg. kontaan de kese dama bëgg. bëgg rek. bu mhm. nga bëggee loo si teg. kontaan nañ. gannaaw kontaan lu si tegu gannaaw neex lu si tegu. lool. lool. waxal lool. lool. merci la rawal say mees. ah. kan la rawal say mees. sa benn sœur. sa benn sœur. waaw. mais doo ko seexlu. non non. doo ko seexlu ah. non non. li tax nga jong ma yow. <laughs> merci beaucoup. yaa jong ma de. merci. sa greffage kan moo lay raay. <laughs> DJ Ama. DJ Ama. eh waay Samba mais DJ Ama moo raay tey nga ñëw tey sa xol. kontaan rek am kontaan contentement bu baax. parce que Sokone lañu am amul lu jub Sokone. waaw bu ñu ñëwee xool doomu Sokone lu ñu génnee massivement tey si programme nga xamante ni moo nekk programme Bargny waa Kese Dakhal tey am na ngay wax ñi nga xamante nekk si am jàmm en de la télévision. waaw di leen wax leen encouragé rek parce lii tam lu baax la. waa parce que ñun amul lu Sokone Sokone la ñu am. waaw ñuy ñaan nag bés bi ñu commencé ko si bisimilah eggale ko si alhamdulilah rabbil alamin waaw yow du jàmm da ngaa baax yow borom baax nga. non dama kaa bëgg. da ngaa da ngaa ñàkk ki baax. non yéen a ma a baax. waaw da ñoo nag. sa kaala baax na de. baax naa ah, la yow Mauritanie nga jógee yow. foo jógee. déedéet man Sokone fii laa rek. ko Sokone de. tey noo gisee bésu tey bii tey. waaw macha allah mention allah réussir na quoi réussite totale. waaw yow de bu ñu la dañ laa gëj a na moon la macha allah. kontaan ma leen dàq na kontaan ne ci yow bu baax a baax. di nag succès total. yow da ngaa baax lu baax rek nga yow. yéen a ma gën a baax. di nuyu sa caméra bi ma sa caméra maamay bi gis na ma torotal kal wax ko mu bàyyi wax.